FM. ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دلو سيوار نانو كي سونو جتا اي فرال بسقوني موي بالحكمة تاينك نبغى جمي سونو وقتان كي ياري بيريوي جامنو يي يتيل نانو ريو ميب ريو ميب ñaari biir yëpp itam day lu dox diggante ñi jiite réew mi ak ñeneen ñu bokk ci réew mi ñenn ñi ñooy jàngalekat yi ñi ci des ñooy ñi yëngu ci politique li xew te yitteel kon mboolem ku dëkk ci réew mi rawatina nag ñi jiite réew mi rawati it ñi nekk ci kuréeli jàngalekat yi ak ñi yëngu ci politik ci réew mi loolu mooy wuute gu dox diggante ñi jiite réew mi ak jàngalekat yi ak wuute gu dox diggante ñi jiite réew mi ak ñeneen ñi yëngu ci politique wute yooyu nag ak fii mu àgg nii dafa am lu ci mën a juddoo lool ku ne war na ko moytu ndax bu dee di aju ci ñi jiite réew mi ak jàngalekat yi seenu wuute di ci mën a juddoo mooy ci niñ koy waxe atum njàng mi sànku moom la ñuy wax année blanche mooy at mu sànku at moo xam ne kenn du ko limaale day mel ni amutoon day mel ni amutoon ci ñi doon jàng waaye dafa sànku dëgg-dëgg mooy liñ ci def ci xaalis lépp day mel ne luñ sànni la kon liñ ci def ci xaalis lépp ci wàllum njàng ci at mi bu année blanche amee day mel ne loolu lépp day luñ sànni ci géej gi mu doon lu sànku ndax at ma dañ ko dut limaale dañ ko dut jàpp bu ne ku nekk fa mu tolloon daaw fa mu ñemoon daaw fa lay tàmbuleewaat nga xam ne kon day mel ne at mi dañ koy jël te dana wàññiku seenug dund ki amoon fukki at ak juróom-benn daaw ren moom fukki at ak juróom-ñaar déwén moom fukki at juróom-ñett fukkeelu atam ak juróom-ñaaram bii moom day mel ne dañ ko sànk ci dundam te loolu mën naa am jeex it ci am njàngam ci kanam mën naa am jeex it sax ci bu demoon boo bëgg am liggéey mën na ci am jeex it ndax ay at day am jeexit ci yoo yi léeg-léeg nit am lu mu bëgg ñu ne ko bu say at matee nangam ba bu ëppee nangam doo ko mën a am ta at mi ñu sànk nii man na tax nit ëllëg mu bëgg loolu at mi ñu sànk moo tax mënu ko am kon li ci juddoo lu rëy rëy la loo xam ne ku ci bàyyi xel war na ko moytu kam kàttanam ci li ñu tudde année blanche te bu fekkee nag ñii ñuy doxe lañuy doxe mën naa am mën naa am kon li ciy juddoo lu woyofut la woyoful kenn war ko woyofal bu dee diggante ñi jiite réew mi ak ñeneen ñi yëngu ci politique seenug wuute moom li ci mën a juddoo mooy fitna mooy fitna bu dee jàngalekat yi ñoom fitna mën na cee bañ a juddoo du ci juddoo sax waaye bu dee ñeneen ñi yëngu ci politique nag ak ñoom seen ku wuute ak ñi jiite réew mi moom bu ñu wéyee nii rek fitna mën na cee juddoo fitna nag bu xasee am moom kenn du xam lor fu muy fu muy yem. kenn du fu muy yam moom li nu wax ci année blanche bu amee lor ji xëy na ñiy jàng ñoo ci ëpp luñ gàddu xaalisu réew mi itam dana ci am jeex it jum ci am ndax lañ dugal ci njàng mi yëpp day mel dañ ko sànni waaye bu fitna amoon nag fitna ji nga xam ne mën naa juddoo ci wuute gi dox diggante ñi jiite réew mi ak ñi yëngu ci politique ñeneen ñi na joj bu amoon moom loram mooy gën a bari ci wàll yëpp ci wàll yëpp loram mooy gën a bari kon nag biir yooyu yi nga xam ne lor yu toll ne yii nu wax mën na cee juddoo warees na cee sàkk pexe ba moytu mu àgg fay tax lor yooyee juddoo ci lan moo waral wuute yooyu yi ba àgg fii mu àgg àgg fi mu àgg moom li ko waral rek mooy xay na kenn ku ci nekk rek dafa jàpp famu jàpp kenn ku ne dafa jàpp fa jàpp ñu jiite réew mi seen digg ak jàngalekat yi ñu am fuñ jàpp rek ne duñ ko bàyyee jàngalekat yi am fu ñu jàpp ne dañ ko bàyyi diggante ñu jiite réew mi ak ñi yëngu ci politique ñeneen ñi it ku ci ne dafa am fu jàpp rek ne du ko bàyyi. ñaar ñu am wuute nag bu ko ne jàppee fenn rek ne du ko bàyyi loola ak juboo aku déggoo dana jafe mu am seen diggante ndax wuute mooy ñàkk a déggoo rek. ñàkk déggoo nag bu amee ci ñu war a déggoo di war a doon yitte yi ku ci ne ci ñoom mooy fexe ba déggoo gi am waaye wërta sax ci luy tax soree gi di yokk ak ñàkk déggoo gi ndax ku ci jàpp ne am na doole walla kàttan walla lu mën a sukkandiku daal ba ne li mu bëggay am bu ko jàppee it te doxul doxiinu ku bëgg ak déggoo am bu ñàkk déggoo amee ba lor yi juddoo ca du ci mucc kenn du ci mucc lor ji kenn du ci mucc kon li war a doon yitte mooy bu wuute amee ku nekk fexe nu déggoo amee te mu bañ a doon loolu ku nekk day jàpp ne moom am na daal fu mu mën a sukkandiku ba tax lim bëgg rek am mi ngi mel ne rek li tax kenn du ci mucc ñu jàppoo ak buum ki jàpp fii ki jàpp fii ku nekk bëgg mu ñëw ci wetam kenn nanguwuta yolomal kenn nanguwuta bàyyee morom ja bu ku nekk xëccee la cee mujje rek mooy mu dog te bu dogee ñoom ñaar ñëppay daanu mais ko ñoom ñaar ñëpp ñoo cay loru te kenn amatut ak buum kenn kenn du ko ci am ñoom ñaar ku nekk dagg it dagg yitu buum ngay am waaye doo amuk buum kon li tane mooy ñu bañ ko xëcce noonu waaye seet nu ñuy def ba buum gi des seet seet nu ñuy def ba buum gi des mooy fexe ba déggoo am la ku ne war a def yitte déggoo bi mën naa am buñ ko sàkkoo nañ ko war a sàkkoo bu dee ni mu war a amee itam ci sunu xalaat moo di ñu jiite réew mi ñoom ñoo ci ëpp wàll ñoo ci ëpp wàll ñoo ëpp wàll ci sàkku déggoo am kon ñoo ci war a gën a xar seen tànk tubéy li taxit mooy ñoom la waa réew mi jiital kon ñooy kilifa yi kilifa kilifa kilifa nag mooy ëpp warugar luy doxal la mu yilif moo ci ëpp warugar ña yilifaale am nañ ca warugar waaye moom mim yilif nag moo ci ëpp warugar kon ki yilife digganteem ak kamu yilif lu ca am lu wërta deme noona rek moo ci ëpp wàll moo tax kon moo ci war a gën xar tànk tubayam ba lépp lu ñu moytu bañ am loolu nag lay tax mu man ko moom mi jiite mooy kon ci tënk rek dañ naan gouvernement bi wala exécutif bi exécutif bi mooy président ak gouvernement bi ñoo ëpp wàll ëpp warugar ci seet pexe yu ñuy def ba déggoo am ba la ñuy ragal ci ak yàq bañ a am lay tax ñu mën a taxawe seen wargal woowu nag la ca jiitu mooy ñu nangu ko ba noppi ñu nangu ne ñoom ñoo ëpp warugar ci lu war a lijjanti jafe-jafe bu bu am ci réew mi rek ak ñàkk déggoo gu am seen digg ak ñeneen rek ñoom dañoo war a nangu te yëg ne ñu ëpp warugar ci jéem a seetlu koy saafara ñu xam na it safaan bu amit ñoo ñoo ci ëpp wàll li ñu tuddee responsabilité ñoo ko ci ëpp ñoo ci ëpple ndax ñoom lañu jiital ñoom lañu jox man-manu réew mi alal jiñ am ñoom lañ ko jox baat bi ñu am ñoom lañ ko jox kàttan gi ñu am ñoom lañ ko jox ki ñu jox loolu lépp nag moom moo ëpp warugar ci luy sàmm lépp lu aju ci ci réew mi dañ ko war a noonu kon moo ci jiitu ñu yég ne ñoo ci ëpp warugar lu yàqu lu nekk itam ñoo ëpp responsabilité ci yàqu googee bu loolu jàllee it nag la cay tege mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu xoolaat ni ñuy doxalee ak ñi ñu yilif kilifa digganteem ak kamu yilif dafa am doxin aw doxalin wu fa war a am da am doxalin wu war a ame moom kilifa gi di ko jëme ci ka mu yilif kilifa du jaayante fulla ak ka yilif du ko jaay fulla du ko jaay doole du ko du moom bopp yooyu yëpp du du du jikkoy kilifa du lu jaatu ci kilifa diggante ak mu yilif dëgëranteeg moom bopp jaayanteeg moom fulla jaayanteeg moom doole du lu jaatu diggante kilifa ak mu yilif ndax ci waxin du moroomam du moroomam ci waxin nit nag du jaayante ak kudul moroomam fulla du jaayante ak kudul moroomam doole kudul moroomam te moom moo ko ëpp doole mooy ñi ñu dénk réew mi ñoo ëpp doole ñeneen ñi ndax ni ma ko waxee léegi li réew mi am ci doole ñoom lañ ko jox li ci man-man ak kattan ñoom lañ ko jox kon ñu ëpp doole keneen ak ñeneen ñu dul ñoom ki ëpp doole nag warata tey kilifa warta jaayante jaayante ak kemu yilif doole warta jaayanteeg moom fulla waaye daa war di seet moom ci lépp lu xew rek yoon wuy tax ba déggoo am ndax kii mu ëpp doole bu ko jaayoon doole ji boppam la yàqal ki nga yilif boo ko doole ba ba ba yàqal ko sa bopp nga yàqal ndax ci sa kilifteef la nekk kon loo ko yàqal rek sa bopp nga ko yàqal moo tax kon jaay doole moom ak jaay fulla ak yu noonu du mbirum kilifa kilifa gépp goo xam ne am na ñu koy xiirtal ca loola na xam ne ñooña lañ koy xiirtal lu baax ci moom du lu baax ci moom kilifa liñ ko war di xiirtal mooy di teey di seet di dox doxin wu tax déggoo mën a am jegee mën a am déggoo mën a am juboo mën a am waaye lu safaanoog loolu rek kili ku koy xelal kilifa kilifa ga war naa xam ne lam koy xelal du njariñam kon exécutif bi war na ñoo xam ne seen digganteeg nit ñi moo xam jàngalekat yi la moo xam ñeneen ñi yëngu ci politique la moo xam yeneen kuréel yi ci réew mi la seen digganteeg kuréel yooyu yépp warta tege ci jaayante doole warta tege ci jaayante fulla loolu balaa exécutif mën a lijjanti mbir mi day nangu loolu nangu ne digganteem ak nit ñi noonu la war a doxe bu ko nangoo rek dana soppi waxiinam ak doxinam dana soppi waxiinam ak doxiinam te ki yilif di fexe num déggoo ak ki mu yilif firiwut ak néew doole ci kanamam firiwut ak ñàkk fulla waaye la muy firi rek mooy xam waru garam lay firi ndax lu yàqu rek moom la yàqul loolu lañu war a xam ki jiite lu yàqu moom la yàqul ndax moom liy waru garam mooy yëf yi di baax di bañ a yàqu li yitteem mooy biir yi di baax di jag di bañ a yàqu kon yàqu gu am rek moom la yàqul day mel ne moo am échec ci wet ndax loolu warta doon li ko tax a jóg kon ki jiite bu dee xool ay yoon yuy tax ba juba mën a am loolu firiwut ak ñàkk fulla firiwut ak néew doole waaye rek firi li muy firi mooy xam xam liy waru garam rek lay firi kon dana sopp ni muy waxe ndax léeg-léeg nag ñu seetlu waxin yooyu foo jàppuñ ne noonu la kilifa war a waxee ak ñamu yilif waxin yooyu daal day mel ne jaay doole lay doon wala sax mel ne ku bëgg a jaxase jaxase ñi mu wuuteel bëgg leen a jaxase nit ñi ci des waa réew mi nga xam day mel na daal mbirum gañe la day bëgg gañe ku jiite warta bëgg gañe kenn ci ñim jiite ku jiite warta bëgg a gañe kenn ci ñum jiite waaye li ko war mooy ñum jiite ñëpp ku ci ne yitte jum am mu seet nu muy waxtaane moom ba la ca mën a saafaraw ci saasi saafaraw ci saasi li ci munta saafaraw ci saasi te xëy na mën a saafaraw ëllëg ñu mën a waxtaan ba déggoo ca loola loolu ci lu ci doon loo xam dafa jaaduwut tam mën a waxtaan ba ñu xam ne jaaduwut waaye mel ne koo xam ne jaxase kuréel sàngam ak ñi ci des moo la tax a jóg loolu dëgg-dëgg du jëfi jëfi kilifa li feeg loolu dañut ak jubóo du yomb ki ëpp doole daal parce que jiite réew moo ëpp doole ki ëpp doole moom moo war di gën di di di seddal di gën di seddal ki di gën a seral ki war a gën a bëgg jàmm mooy ki ëpp doole ndax kim ko seqal bu jàmm amut bu ko loree moom boppam la lor bu ko yàqalee boppam la yàqal ni ma ko waxee léegi ki ñu dénk réew ñu ñu jiital cim réew lu ca sikk rek ñoom la sikkal ndax ñoom ak defar ma war a doon seen yitte kon bu sikki amee rek ñoom la sikkel kon soppi li ñuy tuddee discours bokk na ci li tax juboo ak déggoo mën a am bu ko defee itam nit ñi itam li ñuy sàkku ni ma ko waxee léegi lu ci mën a nekk ñu leen koy nangul lu ci mën a nekk ñu leen koy nangul loolu mooy warugaru ñi jiite te fii mooy exécutif bi digganteem ak jàngalekat yi am na lu ñuy sàkku lu ci ëpp luñ dëppoo woon la ba noppi exécutif bi ne dana ko def ci jamono sàngam ci anam sàngam jamono ja jot defu ko jàngalekat di ko taxaw ngir mu def ko ak loolu nag lu ñuy sàkku lu bees la lu mu ci manti doon am na nu ñu war a waxee ak ñoom ba déggoo mën a am nu bokkut ak di leen mel ne ku leen di bëgg a jaxase ak nit ñi wala ku leen di jaay doole wala ku leen di jaay fulla bu dee ñeneen ñi yëngu ci politique it am na lu ñu bëgg wala am na lu ñu jiite bëgg te ñoom ànduñ ci boobaa itam li war ñi jiite moom mooy seet nu ñu mën a fexe ba ñëpp déggoo rawatina ci mbir yu mel nii ñu wuutee am na biir yooyu am na ñuy wax ñuy wax naan ki jiite bu déggoo amut moom moo war a moo war a dogal loolu dëgg la waaye ci yeneen wàll lañ koy gën di waxe lu ci wàllug gi nga xam ne ci la wuute amee ci politique bi ci senegal mooy ni ñuy tëralee ni ñuy tërale ni ñuy jongante ngir jot ci réew mi walla jot ci yenn baat yi ci réew mi tëraliin wi moom wërta doon loo xam ne dañ naan kii moo jiite moo jiite rek moo cee def lam ci bëgg a def wala bu waxtaanee ak ñaar ak ñett déggoowuñ rek mu ne ginnaaw déggoowuñ kon man maay def lu ma jàpp ne moo baax wàll gi moom bokkut ak wàll gi ñuy waxe lu mel noonu bu doon yeneen wàll say gis-gis ci wàllu ci wàllu économie say ci wàllu doxiin li ay priorité nga ne man euh, ab tailleur laa bëgg a def ñeneen ñi politique ne déedéet loolu doonut yitte ju jàmp ci réew mi am na lu gën a jàmp yu mel noonu sañ nga ne man lañ dénk maa jiite li ma jàpp ne moo gën moom laay def waaye wàllu nag lu ñuy tëralee nu ñuy jongante ba mën jité jiite réew mi wala ba mën am baat ci réew mi loola kenn du ci doxale non loola mom waxtaan ba déggo ba jubo ndax ñuy jongante buñ wu ci jongante ku ku ku bu ëllëgé kuñ ci mën di wax né yow lañ jongit mën nako baña nangu ndax daal nanguwutoon sart yi yi yi jongante bi ba noppi moo tax jongante moom sart ya ñu ko seq dañ caa war a juboo buñ ci juboo nag buñ jongante kuñ jong du mën a def leneen lu dul nangu moo tax tu fu ñuy waxee ne man lañ jiital kon man maay man maay dogal loolu ci yeneen wàll lañ ko war a wax bu fekkee ñi jiite réew mi loolu moo leen war kon danañ danañ teggi seen tànk teggi seen tànk mooy duñ jàpp rek xëcc ne fiñ taxaw rek la ñuy taxaw danañ yolomal waaye jàngalekat yi itam war nañoo yolomal ñoom dëgg la am na lool seen àq juñ am ba noppi la juñ leen ameel li ci ëpp àq juñ leen ameel la mi mel ne ku ku ñu yoreloon bor rek muy fayu di fayu ki ko ameel di ko fayu ba mujj mu ne ko waaw baax na léegi fii ak weer sàngam danaa la fay di la faye nii ñu dem ba weer woowa jot te nam ko lam ko waxoon dana ko fay ak nam ko doon fayee de amut kooku bu sàkkoo ñu fay ko kenn kenn wër caa benn baat lu dul ne ko ah jéggal ma xay na ak yu mel noonu waaye kenn waru ko wax leneen lu wuuteeg yu mel noonu lu bees li muy sàkku itam yanu na maana bu yanoo maana nag ndax dañ naan mën nañ ko léegi wala mënuñ ko léegi ak lan lañ ci man léegi loola bu fekkee ku ne defara ko tax a jóg juboo mën na caa am bu ko defee jàngalekat bi jàngalekat yi li ñuy sàkk lu lu bees muy nit de logement yi bëgg ñoom sax ni ñuy waxee waxuñ naan nañ ko yokk ak nañ ko wàññi ñoom waaye dañ naan daal nañ ko tëral tëraliin wu am ak méngoo ak jaadu ci ñiy liggéeyal ñiy liggéeyal réew mi ñëpp xëy na dañoo seetlu ne ñoom liñ ci liñ leen ci jagleel dafa néew lool lool lool bu ñu xoolee yeneen liggéeykat yi ñeneen ñiy liggéeyal réew mi ci yeneen kuréel ba tax na xëy na ñun ko seqal jàpp ne kon dañoo bukk leen yokkal ba tax ñu proposé leen lu yokk ba mujj mel ne dañoo jëme foofu waxtaan wi waaw lu mën a am président am na lu mu ci foog na bi indépendance bi jub si xeet gi. xëy na foofa mënees na caa waxtaane te mel na ne waxtaan buñ ko fa ubbee war nañoo mën a déggoo xëy na li mu wax ndey bàyyi ba octobre mu def ko xëy na bu ko nangoon def balaa booba mën na am déggoo war a mën a am ndax foog naa ne jàngalekat yit euh, xam nañ ne roomaate bi am ci indemnité de logement yi ci ñi liggéeyal réew mi mënuñ ko saafaraaye tollale ñépp yëkkati ñépp ba ca kaw loolu moom xam nañ réew réew mi mënu ko attanu ko te jàngal xam nañ ko jàngal ki xam nañ li réew mi att ak li mu attanu xam nañ ko kon ku wax ak ñoom ci waxin ci lu jaadu danañ war a mën a déggoo ak moom bu dee ñi politique ñeneen ñi it te wuuteeg ñi jiite réew mi fim na nii ci copp yiñ bëgg a dugal ci anam yi ñi yi ñuy jongante ngir jiite réew mi walla ji amee am baat ci réew mi ñoom it ku waxtaan ak ñoom ñu war a mën a déggoo waaye la leen war ñoom mooy ñu nangu waxtaan ñu nangu waxtaan foog naa ne wàll googu bu fekkoon ne ñu jiite réew mi fi mu ne nii nag kon dañ naan exécutif bi ak législatif bi yépp muy kon président ak gouvernement bi ak assemblée itam ndax président bi ak gouvernement bi ñoom xalaat bañ ca am ak bëgg-bëgg bañ ca am mel na noppi nañ ci ba jébbal ko assemblée assemblée kon ñoo ci des kon ñoom it war nañoo mën a seet bunt bu ñu jaar ba déggoo mën a am ci wàllu googu foofa nag xëy na la fay rek moo ñu baña a ci ne rek ginnaaw suba ginnaaw suba ginnaaw suba dañuy dañuy dañuy dañuy waxtaanee projet boobu projet de loi boobu dañ ko daal di waxtaanee ginnaaw suba ginnaaw suba ndax bis sàngam la def nàngam loolu amewul solo noonu. li solo mooy lañ bëgg a def ñu defe ko ci anam gu jaadu anam guy indi jàmm ci réew mi anam guy indi déggoo ci réew mi buñ jàppoon ne dañ koy def le 19 waaye ñu dem ba xam ne loola kat gënut mën nañ koo aj mën nañ koo aj waañu dara lu tee sax ñu mën koo aj ba élection yi ñëw jàll ndax am na ñu xalaat lu mel noonu ne jongante bu demee ba jege di soppi anam yañ koy defé du gën lu jàppoon ni sax luñ ci wara soppi soppilee dinañ bàyyi ba boobu jàll moom bi gën a sës ba noppi ñu mën a waxtaanaat ba mën a gën a déggoo ci anam yi ñuy jongante ngir jiite réew mi wala ngir am baat ci réew mi kon daal li ñu jublu woon rek mooy jàpp ne wàll yépp wàll gu ci ne war am lum bàyyi lum bàyyi waaye ku ne rek warta wone ne man fii laa jàpp te kenn ëpp ma fulla wala kenn ëpp ma doole wala kii naan man maa ëpp doole wala maa ëpp fulla loolu du luy jëmale am réew ci kanam ka ci ëpp responsabilité nag mooy ka ñu dénk ka ñu dénk te mooy exécutif bi mooy gouvernement bi bu dee lu mel ne loi assemblée bokk ci moom itam ñu xam ne lépp lu sikki rek wala mu yàqu ci réew mi ñi ñu jiital la yàqul loolu foog naa lu jar a bàyyi xel la euh, tey bañ a déglu ñi nga xam ne dañuy xiirtal kilifa ci dëgërante bopp xiirtal kilifa ci jaayante fulla xiirtal kilifa ci jaayante doole kilifa amul ku jaayante doole ci réew mi muy président de la république war tam ku mu jaayante doole ci réew mi ndax waa réew mi ko jiital jox ko seen doole kon ku muy jaayante ku mu jaayante doole ci réew mi loolu war tam képp kuy xiirtal président ci lu mel noonu wala muy xiirtal waa assemblée ci lu mel noonu yéen fi nekk yéen yor baat bi lu leen neex ngeen def lu leen neex ngeen dogal euh, loolu ku leen ci xiirtal nañ xam ne lam leen di xiirtal du lu gën ci réew mi tool lu gënut ci réew mi du gën ci ñoom ñooñee ndax ni ma ko waxe lépp lu ñuy bañ bu amee kenn du ci mucc te bootul sax ñi jiite ñoo ciy gën a ñoo ciy gën a loru euh, sëriñ Xaadimu Rasuul foog naa euh, xëy na damay dolli rek mooy kon li nga xam ne moo gën a indi wuute gi diggante ñi jiite réew mi ak ñi politique ñeneen ñi mooy li ñuy tuddee parrainage bi ñuy wax nii loolu tam xëy na li may wax ne ku ne na bàyyi dara mooy foog naa ne li ñuy tuddee principe bi principe bi jaadu na principe parrainage jaadu na mooy ku dem ba ne daa bëgg ñu dénk ko dara ci réew mi euh, jaadu na mu doon koo xam ne waaye ñu xool lu yanu maanaam ci réew mi daal dana am ñu ci wax ne a ah, jàpp nañ ne kii kat war naa mën a bokk ci ñi sàkku ñu dénk leen nàngam loola légitimité la koy jox légitimité la koy jox mooy day wane ne kon moom ku fullawu la daanaka wàllu googu la mooy ku sérieux loo xam ne ku sérieux la rek ndax koo xam ne am na ci réew mi ab lim boo xam ne jàpp nañ ne kat yàlla na ci ku mel ci moom mii mu sàkku baat sàngam ci réew mi loolu la ñuy wax ne kon ko ku sérieux la foog naa loolu rek lañ ci war a jublu waaye waruñ cee jublu loo xam dañ koy def ngir jéem a gàllankoor ngir jéem a gàllankoor ñeen am na Sénégal nag ci wàllu yi luñ ciy def ci at yi yëpp lu jum ci wàllu caution yeeg am na ci yooyu dëgg-dëgg nag euh, buñ ko seetloo ngir jéem a gàllankoor ñeen ñi rek la ndax caution àggale ko fenn dëgg-dëgg day mujj fa démocratie nekkoon ay jamono nga xam ne ñi am alal ñoo ko daan def ca waa ca ca Athènes bu yàgg euh, ci Grèce bu yàgg ñi am alal ñoo ko daan def day mujj foofu lay àgg ñi am alal ñoo mën a bokk ci politique bi te dañ xam fu ñu amee alal ji bu fekkee teg nañ yenn caution yi yeneen yeneen yi nga xam ñëpp ay gàllankoor la day wàññi li ñuy tuddee euh, sañ-sañ bi nit koo xam ne moom amut alal amut ay pexe ak i man-man yu mën a wër réew mi ba mën a dajale ay signature yu bare bare bari waaye am na xalaat am na bëgg-bëgg am na yéene bu fekkee nag dañ ko ko xàññee yële kon day mel na leneen lañ bëgg kon moo tax yooyu baax na ci principe bi waaye nekkoon dañ ko waxtaanee waat bu baax a baax a baax ba <clears throat> lim bañ cee soxla du bari ba ëpp duñ wax itam ne kenn ku ne kenn rek lay mën a mën a seere ndax xeetu seere rek la ne kii naa ko ne jàpp naa ne war naa ak sériyam daal euh, war naa tax mu a bokk ci laaj baat sàngam ci réew loolu li jaadu waaye mooy nit ki mën na koo defal lu mat fukki nit sax ndax moom woteelu leen waaye day wane rek ne jàpp na ne war nañoo mën a bokk ci ñi sàkku loolu waruñ koo tënk ci ne kenn ku ne kenn rek la ko mën a defal lim bi itam war nañ ko mën a xoolaat ba yam yem waaye principe bi moom jaadu na jaadu na ndax dana tax ba mu gën a sérieux ku ci dugg ci dugg doon ku sérieux doon ku sérieux mooy ku fullawu du doon loo xam ne rek kum neex mu jóg rek dugg ci waaye ba bu bu dee parrainage bi am na ci tam jaadu daa tax ba ku ci dugg doon ko fullaw sëriñ xaadimu rasul kon mel na ne àgg nañ fi nu war a yaatale jotaay bi wees nañ ko tuuti sax waaye daal mu ubbi kon jotaay bi ku ci bëgg a bokk ku ne mën a jaar fi ñu daan jaar rek 33 976 09 09 di jotaay bi bil xikma ñu waxtaane tey tolluwaayu réew mi diggante ñu jiite réew mi ak jàngalekat yi ak ñu jiite réew mi ak ñeneen ñi politique taala wa barakatu Mbacke Balla ñu ngi na sa mbokk na nag xam. Mm-hmm. bu ñu xamut. Mm-hmm. ndax fii ne ku jox lu ndaw. Mhm. nga yor ko. Mhm. waaye yor bu ko tag bu ñu rafetlu. Mhm. ku la jox lu mag. wóor. dëgg la. ndax ku ku fekk ko xamante ne da nga koo jël te xamoo mbiram. mu jël nguur gi daganal ah, am ñoom la. daganal yàlla gërëmut. bàkkaar bu ci am am nga ci wàll. dañu xam ko fi néew gannaaw moom da ñàkk nekk ci loxo. suñu mm-hmm. seetlu yaakaar moo xaw a tane ci dundal diine. Mm-hmm. léegi bu ñu nekk ci rek mm-hmm. man de noonu laa gis. waaye nag bëgg a yor réew mi. yorul tax wax loo munut. ba liggéey loo ba liggéey boo ko defut. day day def soo a jiite itam jërul ngay ŋàññi ka jiite. dëgg la. te yow mi jiite itam. jaay doole ña nga ña nga jiite. Mm-hmm. dañu seen yaakaar tas. Mm-hmm. seen yow. Mm-hmm. loolu soppandiku la. dëgg moom yàlla dong nga am. lépp lépp boo gisee leb du mbaa koy gis. am na fi koo xamante ni buñ jaar ci turo waaye la mu doon jéem tële na ci. te yooyu jamono moo nekkoon wasil awal. waaye fekk na dugg na ci kër gu mag. dañ dañ fay jaay. lañ koy arabul. Mm-hmm. waaye mën na ko fay toxal. Mm-hmm. loo loolee am na ñoo am na xol yoo xam ne moom génn ci xol yi nga xam ne ñoo ñoo ko liggéey foofu ak ñoo leen di jàppale. ndax mm-hmm. kër goo xam ne ci cosaan muy kër gu tedd. ña fay liggéey di daan seen doole di di seen ñox da nga alxuraan ko sayt yow xëy na da nga koy tëj wala da nga koy da nga leen fa jëlee kookee la dañ ko dañ am na ñoo ko si kenn ba na ko jëlee na ni kon nag loolu jël du def mm, da nga yéene daa biir leen bu ko defee ñu am ci yow yaakaar. bu njëg moom dëgg dëgg bu jotee. ñu ne kii ah ku mën naa am ci moom yaakaar. waaw waaye ku awul fenn fi. tàmbalee yàq bu ñu joxe la la gën a kawe. ah dara du ca wóor. kon ñuy gërëm ñëpp sant ñëpp jërëjëf salaatu wa salaam ala rasulillah. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf seen Ousmane waaw xam naa li li mu wax ci ne kii ku ku ku ku ku yilif ku jiite. warul di jaay doole ñu mu jiite lu am solo la te dugg na lool tam ci liñ doon waxtaane ci jiite warut di jaay doole ñu mu yilif ndax ñooña xam nañ ne moo leen ëpp doole ndax lañ am ci doole ñoo ko boole jox ko ko kon nag waru leen a jaay doole waaye daa war a nu ak déggoo war a amee ci seen biir ñoom ak nu mu war a itam ci digganteem ak ñoom loolu dëgg-dëgg mooy waru garu waru ku jiite niñ ko waxee kon rek noo ngi waxtaanee li xew ci jamono yi ci réew mi ñàkk déggoo gu am diggante ñi jiite réew mi ak jàngalekat yi ak ñàkk déggoo gu am ci diggante ñu jiite réew mi ak ñeneen ñi yëngu ci politique ci réew mi te mu àgg foofu nag buñ ko seetaanee nii rek ku nekk jàpp fi mu jàpp rek mën naa jur lool du gënal kenn kon ku ne am na ci warugar waaye nag ki ci warugaram ëpp mooy ki jiite réew mi ñi jiite réew mi bu dee Sénégal dañ naan ki jiite réew mi ndax dañ naan moom la nit ñi fal moom moo fal ñeneen moo tànn ñeneen ñu koy jàppale waaye nit ñi moom lañ moom lañ moom lañ seqal moom la ñuy waxal ndax moom lañ tànn moom nag moo tànn ñeneen ñu koy jàppale kon ñeneen ñi moom la ñuy jàppale waaye nit ñi ñoom waa réew mi moom lañ seqal ndax moom lañ tànn kon Sénégal mën nañu wax rek ne ki réew mi ki jiite réew mi bu demee bu dellu aju ci loi ñu boole waale ci itam ñu nekk ci assemblée nationale ndax ñooy voté loi yi kon ñooñu ñoo ëpp warugar ñu ëpp responsabilité ci biir yi di lijjantiku bu bu ñàkk déggoo amee bu réeroo amee bu jafe-jafe amee wàllu gu ci ne war naa def luy tax déggoo am waaye ñoom nag ñoo ci ëpp warugar ñoo ci ëpp responsabilité ndax ni ma ko waxee léegi lu yàqu rek ñoom la yàqul ndax ñoom seen liggéey mooy defar fexe ba lépp di jag di gën a baax kon lu ci àggut foofa rek day mel ne ñoom ñoo yàqule ndax lañ bëggoon moo amut kon ñoom seen responsabilité dafa gën a rëy ci wàllu googu asalaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw sëriñ Diouf. ok Diouf. jërëjëf ñoo ngi lay siyaar bu baax Mbacke. jërëjëf yal na yàlla bool nangu. di ñaanal sëñ Mamour yàgg ak wér ci la ko ñaanal. ñaan na ko yàlla bool def tubal na ko. ñaanal yàlla bàyyi la sa xam-xam barki rabbi si ñu man. ñaan na ko yàlla bool defal. may la fan nga gudd ak wér. ñaan na ko yàlla bool defal. ah ñu ngay wax dem naa wax baax. Hmm. waxal bu baax Mbàkke ndax yàlla yàlla def dégg ak topp ñu dégg li ngay wax. Hmm. yal na yàlla yëkkati sa kàddu ba yóbbu ko foofu foofu yoon ci. amiin amiin amiin. Mbàkke si Abdou Khadir Mbàkke mat naa waxtaane lool. Hmm. Hmm. maanaam njàng mi nag moom. ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi nga xam ne moo boole ñëpp yilif. te ba ñu toogee waxtaan. moo moo ñamu ñamu seqal liggéey ba ñoo waxoon ne mën nañ lii mën lii mën lii mënul lii mënul lii mënulu lii mm-hmm. la ñu waxoon ne mën nañ ko mm-hmm. loolee day daa mel ni moo indi coow li mm-hmm. ndax daa mel ni dañoo waxoon lañ lañ waxoon ne mën nañ ko moom lañ jëf daa mel ni ñi ma dégg ñuy laaj dañ noonu lañ noon mañ nañ ko nañ ko def lu ci ëpp noonu la ah mais la ci ëpp de noonu la luñ luñ luñ dëppoo woon ba noppi la kon nag lañ waxoon ne mën nañ ko mhm. te it mel na ni mën nañ ko nag mhm. loola kon nañ ko def mhm. loola daanaka ki ñu dénk réew mi nga xam ne ñëpp ba booloo dénk ko réew mi mu mu yilif ñëpp it loola daanaka responsabilité la waaw am na ko ci waa na boo nit ñi waxtaan ak ñoom la mu waxoon ne mën na ko mu defal leen ko lii nga xam ne mu indi coow jongante yi ñëwit mu woo ñu ko seqal ñu waxtaane ko te itam bañ a dégg noonu nga ko waxee yaa man yaa am. Mhm. yaa yor doole ji. Mhm. ndax am na lu ma dégg kat te jamono yële am ko wax ci ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi. Mhm. ci ñoñam. loola day rafet ma ko dara. ndax dégg naa mu naan ñoo yore armée bi ñoo yore police ñoo yore gendarmerie. loolu wax bu doy la boo xam ne moom. man de ko déggee wax dëgg yàlla am naa ci daanaka moom daal neexuma dara daal. déedéet loolu kay dafa dafa jaaduwul. ah ci sama xam-xam bu gàtt. dafa jaaduwul dañuy waxtaan ci ci ci kii lañ ciy tudde yooyu yëpp lañ ko ci tudde waaw maanaam tudd gi noonu daal moom laa hmm. rafetlu wul dara. Hmm, hmm, ndax noo moom gendarmerie noo noo police ku fa ñëw boo defee nii nu def leen nii daal manoon naa waxee neneen nu dul noonu. moom moom mu ñu ko doon sax di ñooñ ñooñ kenn moomu leen de. déedéet waaw waaye kenn moomu leen. <laughs> waaw ab liggéey ab liggéey lañ réew mi la ñuy liggéeyal ñoom it réew mi la ñuy liggéeyal. waaw am nañ ay kilifa nag waaye kilifa yi moomuñ leen. waaw. Mhm. noonu la noonu la mm-hmm. kon noonu la a waxe waaye wurtoon a waxe noonu maanaam mm-hmm. maanaam waxin lam wax demiwut nam ko waxe sax waaye def mm-hmm. waxin waaye rafetul dëgg la dëgg la dëgg la mooy mooy mooy mooy mooy jaay doole rek waaw mu ngoog jaay doole googu daal jaay doole moom moom jaaduwut xirtal kilifa jaay doole jaaduwut ah. Ah. loolu de moom ku ànd kilifa di ko ko di ko ci xirtal rek di dimbaliwoo ko waaw nañu waxtaan ñoom ñëpp ñu toog waxtaan ni ko sëñ bi waxe bi ñëwee ci sëñ bi ki doon waxal sëñ bi dégg naa mu wax lu demee noonu hmm. toog leen waxtaan sëñ bi ñaan jàmm waaw ah, ah, waaw ah, la leen wax bu ngeen toogee waxtaan sëñ bi hmm. ñaan jàmm hmm. jàmm mooy bëgg nañ jàmm ku ku waxtaan de moo bëgg jàmm waaw noonu da laa dégg ku bëgg jàmm nag mooy mooy neex ñaanal jàmm <laughs> waaw noonu da laa dégg sëñ bi waxe toog leen waxtaane ko waxtaane ko sëñ mhm. bi ñaan jàmm-jàmm am mhm, mhm. kon mel na ni na ma dégg wax ja moom bu ñu buñ ci jubluwut loola ah loola mën naa bañ a kon nañ ci jublu loola toog waxtaan réew mi kat lépp lu fi indi fitna ñëpp ko war a bañ rawatina nag ki ñi nga xam ne moom lañ ne yaanu ci yaa jiite réew jël lépp teg ci loxo moo ko war a gën a bañ man de bëgg naa ci sama xam-xam bu gàtt ñu toog waxtaane ko jàmm rek am ci réew mi ndax rek a fi xëj. waaw waaw. yal na leen yàlla defal dégg topp defal nu ko. amiin ci ñu sàkku jàmm te yàlla may nu ko. amiin amiin amiin barke maam borom Tuubaa barke si Abdou Khadir Mbacke. amiin amiin sëñ Cheikh moom Abdou Khadir yàlla na fi yàgg xëy. amiin amiin la wax lu am la wax. mooy kuy ñaan lu jàmm da koy sabablu moom it da koy sabab lu jàmm nag ci waxtaan lay tàmbalee ci ak ka nga wuuteel ka nga wuuteel ba tax seen gi ngeen ci ragal bu àggee fenn fi mu jur lu dul jàmm ku bëgg bo bëggee jàmm mooy da ngeen nangu da ngeen nangu waxtaan ak ki nga wuuteel li ma ko waxee nag ki yilif moom war di war di di di di di buñ ko mënee wax sax moo war a daw ci ginnaaw moo war a daw ci ginnaaw sax ki kii bañ moo war daw ci ginnaaw kii bañ ndax responsabilité bu waxtaan di am ci kawam la tege asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay Seydina Ousmane. Daali ah, sëñ Daal da ngeen a xaw a kii kàddu tuuti. waaw ñu ngi leen di ziar bu rafetlu ñu tey bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo lool. alhamdulilah. waaye nag man de li ma day àddu xam naa ne bëriwul. Mm-hmm. Eh, sama xalaat bu gàtt daal damaa jàpp ne bu fekkee eh, kilifa yi. Mm-hmm. Eh, dañ ne lii moo warlu ak ñoom. Mm-hmm. buñ ko mos itam nañ ko waxee noo xamante ne si dina defal si xel. Ah, waaw kay waxin waxin daa am. waaw waxin wa daa am daal waxal ñu xamante ne si kat ñu dalal seen xel ñu mën caa jàpp daal. waaye bu leen seetee nii noonu rek ñoom man nañoo ci gisee ko neneen. Mm-hmm. ñoom itam bu ñu xa xamee ne lii warloo naa ñoom te kilifa yi dañ ko war a jox itam seen doole àggut foofa. Mm-hmm. ñu def te yërmande. Mm-hmm. xalaat ne ñoom ñëpp bu fekk ni ñoom ñoo nekk seen position kon noonu lay demee ci ñoom. waaw ñu laaj yu daal kenn ku nekk rek xam li nga yelloog sa morom daal. mën nga def ko yàlla. dëgg la yaakaar naa bu loolu amee daal jàmm dina am. dëgg baax a baax. jërëjëf baal ñu baax tey baal ñu baax nag. mu wax lu am solo la point ñaari ñaari wàll yi ko seq ku ci nekk ku ci nekk euh, bàyyi xel lu lu jaadu lu jaadu xaw naa nduroog li ñuy wax ne sëñ Fallou daana ko wax léeg-léeg ñu askan ko keneen sax waaye daan wax ne ñu ne euh, ab ànd. ab ànd bokk na ci li koy yàq euh, sant santaaneel lu munta nekk ak gàntu lu mën a nekk mooy ki ñuy laaj buñ ko laajee lu jaadu war ko gàntu kii laajit warta laaj lu munta nekk bu yooyu amee rek ab ànd mën naa yomb waaye lu ca bu safaan ba amee kii laaj laaj lu munta nekk wala ki ñi laaj ñu laaj ko lu mën a nekk mu gàntu loolu mën naa yàq ab ab ànd kon ñi ñu dénk ñu jiite réew mi lu ñu leen laaj lu mën a nekk waruñ ko gàntu waaye ñi ñu yilif itam lu ñuy bëgg ñu cay bëgg lu mën a nekk li ma ko waxee nag jàngalekat yi xam nañ lu mën a nekk ci wàllu wàllu am amu réew mi ak man-manam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. ok. di dem ndongo lu nuyoo rek ak siyaar ak déglu xibaar waxtaan waxtaan wu neex a neex a neex. waaw ah, jërëjëf muy muy Serigne. El Hadj Falilou Diop. El Hadj Falilou Diop. waaw man de dafa am lu ma miin a dégg itam jaaxal ma. Mm-hmm. muy li ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Mm-hmm. waaye moom daa mel ni bopp bi daa bari giminte bokk ñu muy wax. <laughs> Uh-huh. kon hmm. dama bëgg li ëpp ñuy wax jàmm. Hmm, moo gën de. waaw loolu daal moom lañ duggee. moo gën de léegi am na solo. waaw bopp yu bari bopp benn bopp waaye dañoo bari ay gi dafa bokk bari gémmiñ. Ah. bokk ñu muy wax. Hmm, kon nag ku ci wax rek ñu ngi lay ñaan yàlla nga wax lu baax rek lu rafet. Ah, waaw yow nag ñu ngi lay sant di la ñaanal. jërëjëf bu mu toll. jërëjëf ñaan nañu ñaan tubaab na ko. jërëjëf sëñ Alhaji Fadel Diop lu am solo la wax. mooy nañuy nañuy wax jàmm nañuy wax jàmm jàmm sëñ bi ni mu ko waxee sëñ bu mag bi daa wax ne ku bëgg jàmm da ko yéene da ko yéene da yéene aw yiw di ko wax di ko jëf ci yéene jëlee tàmbale mooy la bëgg nga xam ne moo koy gënal moom lay ñaan moom lay mébét mooy jàmmu am jëfim jëfam itam luy jur jàmm lay def waxam itam lu jur jàmm lay wax ni ma ko kilifa ku ko bëggal njariñam bu ko xiirtal ci jaay doole ñam yilif asalaamaaleykum waaw am yàlla bool nangul ñu rafet lu waxtaan waaw sëñ bi woote waaw ah, ini ngi siyaar bu baax. waaw kay waxtaan bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. borom guddal fan baax wéral. yàlla na ko yàlla defam. waaw njiit de daa war a jëlal hmm hmm ñëpp ñu war a sa waaye dafa roote. jiit. ndax boo hmm ma yaakaar ne war ngaa war jéggal. ndax ñi ñi nga dañ ñëpp maase ci ne yéen lañ fal. Mhm. kon lépp lay dogal rek. Mhm. war naa ànd waxtaan. dëgg la. tax na kenn kenn bañ kenn bañ njiit gi moom kenn ko. Mhm. nga xam ne yàlla moo ko def. ndax lii su firndeel noonu boo awee ci télé. opposition ñëpp a ci yem. dañ leen xajal may la nga jàll. kon loolu cër bi la cër bi la ko may. war nga ko delloo nit ñi daal. Mhm, mhm. ci lépp la bëgg a dogal rek nga waxtaane ko bu baax baax baax. dëgg la dëgg la ndax bu dee yi tamit. Mhm. jàngalekat yi jàmbaar lañ. lépp loo xam ne war naa ñoom war nañu koy xëy na sax ñoom xam nañ ni am na lu mënta nekk. waaye nañ toog waxtaane ko. suñ ko waxtaanee na dana a am. waaye bëgg a jëfandikoo doole rek loolu mënta wéy. dëgg kenn doole jële yàlla jox nañ koy masla. dëgg la de ñi ñi ñi ñu jiite tamit ñu xam loolu bu baax a baax. Mhm, mhm. te am naa yaakaar ne nangu nañ ko. Mhm. njiit moom yàllaa koy def. yàlla def na ko ba noppi. ndax li firndeel noonu boo awee ci yoon. bu dee ñëw. da ngay wàcc may ko mu jàll. ak yu bëree bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy may. te yàlla moo ko jagleel. kon nag doole jooju yàlla na ko yàlla def mu mu mu mu muñ ko rek. te jéem a jox ñëpp seen àq rek. Mhm, mhm. ci kam kàttanam rek. Mhm. maa ngi jégalu ak ci gudda gi te di ñaan bu baax ci waxtaan wi. jërëjëf ñaan yàlla wax loo indi rek day am solo lool lool. alhamdulilah loo indi rek day am solo lool lool ñu ngi la ñaanal baax baax a baax. ñaan na te ñaan ñëpp dégg ko te jëfe ko. amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, kàddu yi lu ci bari mi ngi fi mu jëm fi mu jëm te foog naa fa war a jëm it mooy ñaax ñi jiite ñaax leen ñuy wax ak def luy andi ak déggoo ak juboo tey bañ a jëfandikoo doole ji leen nit ñi jox nit ñi leen ko jox ñi jiite réew mi doole ju ñu am nit ñee leen ko jox nit ñi boole lañ am dénk leen ko dénk mayuñ leen ko it dañu ko dénk kuñ dénk nag lañ ko dénk da ko war doxale naka ko ko dénk bëggi ki ko dénk nag bëggut mu di ko jëfandikoo jëme ko ko moom foog na foog naa am réew bëggul lam am ci man-man akus néew akus ndoole kus kàttan am ñu ko dénk ñooñu di ko wëlbatiku di ko jëfandikoo ci kawam loolu kenn kenn bëggu ko waaye kay mooy pexe yaag man-man yaag am am ya nañ ko jëfandikoo ci luy jariñ nit ñi la leen di jariñ nag ma nga tàmbalee ci ak déggoo di am ci seen biir ak déggoo dëppoo xalaat du du lu mën a am ci lépp waaye déggoo nag déggoo ma mën naa nekk déggoo ma xalaat yi ñu woote ku nekk téye ci xalaatam waaye liñ ñu war a bokk def moom ñu bokk ko mën a def bu dee ci wàllu tànn ku jiite réew mi wala ñuñ dénk dara ci réew mi sart yañ koy defe dañ cee war a déggoo moom dañ ca war a déggoo daanañ gis lañ daan wax xunn xunn xunn xunn mooy ñu ñuy jongante ba noppi am kuñ joŋ mu bañ a nangu loolu nag bu fekkee dégguwuñ woon ci njëlbeen gi ci sart yi moom day yomb day yomb asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Mbacke Balla. ok sëñ naa sa Guèye. waaw Guèye jaajëf xam naa ne. Hmm. bëgg jiite war tax nga wax loo xam ne mënoo ko. Hmm. ndax bu fekkee jiite jot na nga war a nga war a doxal. dana hmm. nga waxoon mënoo ko dana indi sukkanti. ñaareel nag bare na luy luy xew. yaa ko waxoon moom moo moo koy waral. Mm. yaa ko waxoon. Mm-hmm, mm-hmm. pour gaa def ko. Mm-hmm, waaw loolu lépp day day day indi si tënk. bu mel ne bu mel ne ñaari ñaari secteurs yi ñoo gën a jafe yor. muy njàng mi ak santé. njàng mi ak santé. ñaari ñaari ci day jafe la. waaye nag njàng mi sax daa raw ndax nag njàng moom bu bu ñu leen di jàngal jaaree fee de am si naqari. ñuy jàng si ñoo leen naqari. ñooñu ay coow yoo xam ne kenn xamul. te te loolu loolu moo tax jàmm moo jàmm moo wax wax hmm. lu ñu mën. santaane li si mën. Hmm. bu ko defee te yow miy nangu itam nga war a nangu loo loo xam ne jaar na pour nga nangu nga nangu ko. Mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. kenn ku ne ci da ngaa war a seet lu koy doxal. nga yaakaar ne boo jàpp lu bu ko defee bu nit ci jiw loo defal léppay baax. dëgg la dëgg la. waaye bu yaakaar ne yow poste bi la jox daal maanaam loo deful ci sa poste rek baaxut. xam nga dañoo wax ne dañoo wax ne bu fekkee jàmm yàlla laa neex. nga jaamu mu neex na waaye bu fekkee yow sa bopp doo la neex fi nga jaamu ci lu ci sa jëmm rek du la neex. Ah, ci yàlla dox ci mm-hmm, mm-hmm. xam mm-hmm. jërëjëf salaatu wa salaam ala naa foofu itam la ñuy euh, yemale jotaay bi rek euh, ñi dugg ñëpp ñu ngi di sant bokk ci jotaay bi Seydina Ousmane sëriñ bi sant Diouf sëriñ Daali Ndiaye sëriñ Amady Fadel Diop. ak benen serigne bi doon woote ci dekk bi ñom ñep ñoo ngi leen di sante di leen gërëm di sante ñu ton deglu ñep itam di jégglu ñep it nak ngeen ko wax rek suñu wax yëpp jubluwuñ ci lu weesu defar lu andi ak déggo ci biir nit ñi lu andi ak juboo ci biir nit ñi ku nekk itam taxaw taxawaay ba war ci moom ki doon kilifa taxaw taxawaay kilifa ki ñu yilif itam taxaw taxawaayu ku ñu yilif loolu rek lañ jublu ci waxtaan wi ak yeneen ñu mënta doon moo ngi jégalu ñëpp di diggee daje ay bis gi di ñëw ci waxtu wi ci béréb bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن